مفتاح الظلام والمفتاح الكفر ختم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki julli yi mbokku téléspectateurs yi seetaan seen chaîne bi di Al Misbah TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar yi kilifa gi xaaj Mansour Mbaye di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko te yeggale liggéeyam te defal ko ci lu kawe njortam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit di jaajëfal Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye mi nga xam ne moom la ñuy àndal ci émission bi ci coono yi mu ciy daj di ko masawu coono ak yëpp waaye jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne nag ñu ngi bàyyi xel chaîne bi rawatina émission bi ñu tuddee Kifaayatu Raaxibiin bu Cheikhul Hajj Malick yal na yàlla fayanteeg yéen yiw kon mbokk yi ñu ngi tegoon sunu baaraam ci soobu ci wàllu yàlla rawatina tariqa Cheikh Ahmed bii ñu nekk munta ñàkk wala boog soo nammee am cër ya ca yàlla danga def ni góor yàlla yi daan def mooy nga sóobu ci tariqa bi am sëriñ bu mat sëriñ soobu ci yoon wu baax wa fas yéene jëfe kooka nag dafay soxla xam-xam loolu la bëgg a wax góor yàlla yële ñu doon waxtaane sànq nga xam ne ñoom yegg nañ ci niveau ci yàlla foo xam ne ñu ngi def mushahada ak seen borom kooku ku ne xam ne ne du niveau yi ñu toll ñun ñi nga xam ne dañoo tollu ci suluk bëgg ñam li góor yàlla yi di ñam di ko xeeñtu bëgg ko dund war a sóobu ñun dafay baax ñu wuti lii muy bëgg a wax wa amma man huwa arrin min ilmi alzahiri walbatini fa xaquhu an yaclama maa yaxtaaju ilayhi fi tariqi allati salakaha mu ne képp koo xam ne nag am nga natt bu toll ni danga rafle ci xam-xamu zahir ak baatin yow waxuma baatin mais xam-xamu zahir amoo ca dara xam-xamu baatin waxi noppi mooy amoo ca dara mu ne kooku nag lii yell ci moom mooy mu jéem a xam yoon yu muy sóobu wan yoon la mooy dafa war a wuti xam-xam mais na wutaale jumtukaay boo xam ne dina xam lii mu dugg lan la ak fan la jëm man su ma waaxoo bay ñëw di dugg ci oto bi dinaa xam oto bi fan la jëm <laughs> xanaa minimum du ma ñëw fekk clando bi taxaw rek wala ma fekk taxi bi taxaw wala ma fekk tata bi taxaw rek ma ñëw dugg xanaa dinaa xool tataa bi ñu bindal ma fan la jëm wala ma wax ki yor tataa bi ne ko fan nga jëm mais doo ñëw roog suuf ah waa ji soli gram bu bam toog rek uufu nga ñëw uuf ko ne ko yaay sama sëriñ jox naa la sama bopp xam nga fan la la jëm loolu yàgg xar ma ca dalal yéen a yam prix moo la bàyyi ci bara boobu prix bis bu prix ñëwee nga dem kii joxe prix bi nag kan la mën na nekk ab caaxaan kan mën na nekk lu nekk waaye prix moo la fa bàyyi parce que amoo benn condition boo àndeek moom mu ne fa in aba wastakbara fa innahu baidun an il wusuli ila tariqi manhaji saadati mu ne su lànkee bañ wuti xam bu ko gunge ci wàllu sóobu gi mu jëm ci waay wàllu yàlla ak rëy jàng parce que xam na ne jàng farata la mu rëy koo def ak lànk ni du wuti jumtukaay yu ko gunge ci wàllu wii mu jëm mu ne na dem waaye na xam lenn de moom ku sori yoonu texe la ku sori yoon wu jëm ci yàlla la même bu dee nee nañ ko sóob nañu la sóob nañ ko naam mais fi ñu ko sóob fan la jëm loolu na ko bàyyi xel te dama ragal ne képp kuy sóobu jëm ci texe dem ci bonheur jëm ci yàlla moo la tax a jóg kon war ngaa xool ci ki ngay lang ndax ma lay jaarale ci siraatal mustaqim ndax mi ngi lay wax li yàlla wax ndax mi ngi lay wax li yonent bi wax ndax mi ngi jëfe li yàlla wax ndax mi ngi jëfe li yonent bi wax ndax yaa ngi yëg ne ma ngay mos la góor yàlla ya di mos loolu lu mat a ràññe la mu ne ko bañ loolu yëgal ni sori nga mu ne fa hada wa naxwuhu mimma qad istaara fi baadi albilaadi chararuhu wa aduma dararuhu mu ne ku mel nii nag waaju mel nii ak sëriñ bu mel nii di nax ay taalibeem naan leen njàng mi jaru ko parce que xam-xam bi dalay kii rek dalay baare ko da ngay wut yàlla rek nga gëmm bañ a xool dara mu ne ku mel nii ak taalibe bu mel nii nee na ñoom ñoo fees dell dell ñoo tasaaroo ci àddina bi yëpp réew yëpp ñoo fa nekk nee na seenu mbon moo tas fépp ci àddina bi seeni loraange moo tas moo fees dell moo gën a rëy lépp loolu moo tax léegi xàmmee sëriñ yombatul parce que ñi ci rax te duñu dara ñu ëpp junni yoon benn benn góor yàlla ya aw yoon di gindi seeni taalibe te yàlla rek tax te wutuñ ca ñoom dara lu dul bëgg ñoom ñu ànd ak ñoom wéttaliku ci wàllu yàlla pour am yàlla jeex na léegi nag mu ne fal fal yatanabbahi alfatinu li daalika mu ne kii conscient ki am xel na yeewu mu xàmmee bu baax ñiy naxaate wane ne ci yàlla la ñu jëmee taalibe yi te fekk dañ leen di sacrifier dundee leen ak ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak taalibe yi di leen gindi ci wàllu yàlla rek te wutuñ ci ñoom dara wa man takallama bi shay'in منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة لما في إبقاء مثله من لحوق الضرر العظيم شغل حاج مالي نانا سيريني وخلو ملني نخمني أي فو مرابو لنو دي غالن كور نيت ني بور دونيو جانغ دي غومبلو نيت ني تي والو يالا تا وارون لين غيندي موني ني فونو ادو ñu rey leen ñu rey leen moo gën ci diine ji moo gënal yàlla ñu dundal fukki nit rey kenn ci ñoom moo ëpp doole ca yàlla nga dundal fukki jullit fukki nit ngir des gi ñuy des ci kaw suuf ñoom fi muy yegg ci xóotug yàq ak xóotug lor kenn mënu ko natt ben yak kat ngay xeeb mu ne ci société bi di mara fomarabu di nax ay nit di leen jëme fu yalla bëggul nga xeeb ko bayyi ka ca nee mu yak société bi yëpp gisoo ben pombiteer bu nëpp ci saako laaj ko commerçant yi amal saako pombiteer mu am ben pombiteer bu nëpp mu nekk ci biir saako bi nga bayyi ko ci nga seet saako bi yëpp ngay ñak pombiteer bu nëpp pombiteer bu ko laal dalay wàll bu dendeek pombiteer nii dalay wàll nëbam bi pompiteer boobu wàllaat bi mu nii pompiteer boobu wàllaat bi nëb da ngay xëy saaku ba yépp nëb looloo tax wolof di léeb naan lii dey pompiteer bu nëb la ci saaku mooy bu amee koo xam ne dafay orienté ay nit jële leen ci njub di leen jëme ci caaxaan ci tuuru diine te léegi loolu bare na nee nañu ñu xeeb ko naan ah moom kese la benn boobu dana yàq lu ëpp téeméeri nit yoo xam ne jege gi ñu koy jege ci la leen di wàll ak sori yàlla ci la leen di wàll ak ñeme bàkkaar ci la leen di wàll ak tayel ci jaamu yàlla wal fasaadi la amimati li ummati muhammadiya nee na ak yàq gu matale goo xam ne moom bàyyiwul benn gox bàyyiwul benn ruq yàq goo xam ne dafay tas ci àddina bi pàncan mu ne looloo tax ñooñu seenu dund amalul njariñ askan wi من وفي روح الارواح ايضا تقول حاج مالك ننا بودي من روح الارواح دا فيك من من ظن ان الفتح اقبال البريه والنيل المراد من الدنيه فهو في غرور عظيم لي ني تودي فتح تي والو يالا ني ني ديو ليغي امنا فتح تقول حاج مالك نكو ياكار ني فتح موي جبلو جيلي مندي في جبلو mbooloo mi yëpp riir sëriñ diw sëriñ diw sëriñ sëriñ ñu ne oh diw léegi dafa am fatxu de la ilaha illallah li ko topp ci mbooloo kenn xamul lu mu toll mu ne wa naylul muraadi min addaniyati ak am nammuteef loo bëgg ci àddina am ko loo bëgg rek am ko ñu ne diw am fatu moom lu mu bëgg mu am ci wàllu àddina mu ne fa huwa fi gururin azim mu ne kooku mi ci waru gu rëy rëy rëy kooku dafa trompé mu ne ki yaakaar ne fatxu ci yàlla ñu ne diw maftu alayhi la pour ma am fatxu ci tariqa bi nee na ku jàpp ne fatxu boobu mooy mbooloo mi gën a bare yaatu wër la ñuy riir ay diw mbooloom ma alal ju dul jeex loo bëgg rek am ko ci àddina loo joxoñ sax ñu dagg ko mu ne ku defe ne lii mooy fatxu yaa ngi waru waaye waxul ne ku am fatxu doo am alal waxul loolu waxul ku am fatxu doo am mbooloo waxul loolu waxul ku am fatxu loo soxla du faju waxul loolu de dafa ne ki jàpp ne loolu mooy fatku bare na ku mbooloo wër ñu defe ne fatku la du fatku yëfu seytaane la yor bare na ku alal wër ñu defe ne fatku la du fatku yëfu seytaane la yor te ci jëf ji nga koy xamee dinañ ci ñëw li muy bañ rek mooy ñu àtte góor yàlla ci mbooloo wala ñu àtte góor yàlla ci alal wala ñu àtte góor yàlla ci lu mu bëgg am ko ñu ne ah diw nitu yàlla la xoolal mbooloo mi du ñu ko nattee foofu mais donte lool tekkiwul ne nitu yàlla du am mbooloo déedéet tekkiwul ne nitu yàlla du am alal mais du loolu mooy àtte bi nit dina am fatxu ci yàlla te fekk bu xëyee sax du am lu mu añee nit dina am fatxu ci yàlla te benn nit du ko topp benn benn taalibe sax du ko am ci kaw suuf te ñuy informer yëpp ci jëmmam ji la ñuy xewee su ko defee nee na loolu lu mat a xam la mu ne waru googu nag afaana allahu min al masaib yal na nu yàlla musal ci ci musiba jàpp ne fatfu mooy mbooloo ba léegi ñëpp mbooloo rek la ñuy wuti xam nga ne bëgg nit ñi ne am nga fatxu ku mu jaral lépp luy maye mbooloo nga def lépp luy maye mbooloo nga xam ko di nga ko def pour nga am mbooloo pour ñu xam ne am nga fatxu loolu ban njëriñ la am est ce que booy dee mbooloo mi dañ lay topp sa biir bàmmeel kenn dula top ndax boy dekk mbolo mi dañuy ñew escorté la kenn dula la escorté fi danger bi gëna reey fa la mbolo mi di baye moy bo déwé wara dugg biir war fa wit ñu di tak takk taalibe yi won la ginnaw dila xol ni té ya daan titoro di wak mbolo mu reey ma bo taxawé ñu ne kecc dik escorté la ku bëgg nuyo sax ñu baré sa loxo sëriñ bi kenn duko jégé jege talibé yi tok di xol ñu simmi la talibé yi tok di xol ñu tak say tank tak say loxo talibé yi tok di xol ñu yanu la taalibe yi toog di xool ñu ne la yoor ci pax mi ñu yenu seeni loxo yuuku rek lañ ci mën wan la ginnaaw ñu jël suuf si sotti sa kaw suul la taalibe yi wan la ginnaaw dem ñibbi loolu ban ban njëriñ la mbooloo am ban njëriñ xanaa xam nga ni fii kay mbooloo bu doon jëriñ fii lañ ko soxla fi ñu lay takkee ñu toog di la xool mu suul la ñu toog di la xool jël suuf si jal ci sa kaw duñ la maase la sax dañuy jëlaat ngandum jal sotti ci sa kaw jal ko ba mu kawe jël ndox mi soti sa kaw dem seen yoon talibé yi ko di joy dem bàyyi la fa yow kenn képp ak yalla kérok lo yaakaaroon ne moy sa wétal luddul yalla alko al nga parce que mbolo ma daan war xam nga fu jëm légui ñi ngi séti kan lañ wara top après yow nak yow dong nga wét ci sa bamél bi señ bi mbolo du yalla yalla du ay caaxaan yalla moy wétal mbolo matul yalla té ñu bëri dañoo waru ci wétaliko mbolo ba talatuñ sax jaamu yalla talo sa lawraat yi taloo alquran talo dara parce que mbooloo yi mbolo mbolo señ bi yegul bamél de nga wara dekk dekki yowmal xiyam wa kulluhum atihi yowmal khiyamati farda yalla daf ñu téla a artu ne attention dé def leen leen wax waye fi yowmal khiyam kuy ñew kenn dula gungé kenn par kenn la leen di recevoir compte rendu wi kenn feki. mag yow wi klo kenn du lolu señ bi kuko xass xam sa yitté ci adina yépp du lenn lu wut xam-xam ak jaamu yalla ak fexé no rëccee ci pexé shaytan yi mu ñu tégal ba japp nañu adina bi luy saxla te loolu waxuma ñi xamul waaye am na borom xam-xam sax yu waru yoo xam ne lii yóbbu na leen ba talatuñoo wut yàlla jàpp nañ na xam-xam boo ko amee am nga yàlla noo xam-xam eseel la bu lay yóbbu ci yàlla nañ ci góorgóorluwaat mu ne kon nag fal xadara al xadara min suxbati al jaahili al muddaai Cheikhul Xaj Malik mu ne maa ngi lay wattuloo dellu di la moytuloo nag lu ma mën ci di la moytuloo nga ànd ak jaayil buy woote koo xam ne jàngul dara xamul dara ci diine ba pare nekk sëriñ di woote mais c'est catastrophique nit ñi xam nañ ne loolu am na am na ñoo xam ne yow ñeme wóole na laaj masala ci biir mbooloo duñ ko tontu <laughs> parce que xamuñu ko am na sëriñ yoo xam ne bu ñu toogoon ci mbooloo kenn kenn du leen laaj masala diine parce que xamuñu ko te ñoom bu ñu leen laajoon masala diine duñ ko tontu parce que xamuñu ko waa ba pare di woote naan kaay leen yow xamoo dara woon nit ñi naan kaay leen ma yóbbu leen c'est dommage on se sait Xaaj malik na moytul ma top jaayil bu réer di wote nga ànd ak mom bu duggé ci pax dugalale la ci pax walxadara tumma alxadara min suxbati alaalimi bi al alxaali an taxalluqi bi axlaaqi nabiyi alkarimi sallallahu alayhi wa sallam fa inna suxbatahuma aynu alfasaadi mu ne waaye nag maa ngi continuer di la moytuloo dellu di la wattuloo bu baax a baax moytul ma di ànd ak fu mu la ko waxee rek mooy ngay topp waajoo xam ne xam-xamam ci làmmiñam la yam du jëfe xam-xam nañ am na xam naam jàng na waaye amul lenn ci jikko yonent yàlla Muhammad mboolem jikko yi ñuy taggee yonent bi benn nekkul ci moom moom daal am na xam-xam mi ngi wër di wax ñëpp di ko yéem ak a bari xam-xam waaye foo jëflanteeg moom xeeb ko ndax lépp lu diine di tere mi ngi koy def waaye bu waxee ñëpp daanu loolu am na am na boroom xam-xam yoo xam ne distance rek de def ko ci ñoom moo gën mais boo jaxasoog ñoom yow da nga naan waa man est-ce que diw mi laay gis muy waxtaan sax est-ce que kii la si xaaj Maalik na moytul ma waajooju faasix pire mi ngi noonu maanaam kooku saay-saay la am na xam-xam waaye góor-góorluwul pour defar jikkoom ba roy jikko yunt yàlla Muhammad heure bu wéetee defuk caay-caay waaye bu waxee jommal ñëpp mu ne moytul ma ànd ak ku mel nii ak ku mel nee ma la njëkkoon a wax mooy jaayil buy woote ak boroom xam-xam bu jikkoom defaruwul mu ne ñaar ñii ànd ak ñoom mooy jëmmi yàqute yow ànd gi ngay ànd ak ñoom rek ak yàqute la déjà kon nag kenn waxul bu kenn ànd ak kenn waaye ab taalibe day tànn àndandoo àndandoo ci wàllu yàlla bokkul ak àndandooru àddina àndandoo ci wàllu yàlla mooy koo xam ne daf la naw nga naw ko mu di la gunge ci wàllu yàlla la muy jaamu la lay wax ngeen ànd di jaamu yàlla di wéttalante te yàlla rek tax du ngeen ca mooy yàlla du ngeen ca wuruj du ngeen ca njuunjaat du ngeen ca business loolu nag ah ku ko mën a saxal wutal góor yàlla ngeen ànd di gungente ci wàllu yàlla ba keroog yàlla di leen gërëm kon mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam bu nu ñëwaatee nu yeggale ko pour wax ne ànd ak góor yàlla baax na waaye na nga segg ba xàmmee xam kan moo la jëme ci yàlla ak kan moo la jëme ci boppam wala ku la jëme ci àddina kon mbokk yi ñu teg foofu duñu baaram salaamaaleykum wa rahmatullah في ترحيبهم زاد مفتاح الظلام ومفتاح الخلود وختم الكل لله